asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internetu Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko saaku ci yéen tey nag dafa am benn mbir boo xam ne moom lañ ñëw bëgg leen ci indil ay leeral ak Leewtoo 100 pour cent làmb te itam saa yu amee importance rek bu ngeen di boo xaar ko si ñun li tax loolu mooy ku ne dégg na fan ni coowal Gris Bordeaux ak ki nga xam ne moom moo di Gaston Mbengue ñu ne déet ne waay Tafa Gueye génnaat wax ci ay wala boog ñu jàngal ci ay journal que ni Tafa Gueye yëgul combat wu ki ñu seet tey nag moom mooy manageru Gris Bordeaux di Khalifa Dia dëkk fii ci Fass ñu fekk ko këram euh, tontoo xalifa maa ngi lay nuyu di la ziar. yëkkatil sa micro tuuti. lay delloo nuyoo di la mbaa yaa ngi am jaam. alhamdulilah ñu sant yàlla. ñu ngi lay balu ax di la baal si weeru asura wi nu nekk nii muy weeru tamxarit wi. Mhm. di ñaan yàlla at mu bees mi dàq bii di ñëw. wa corona bi dem maa lay bëgg bu baax. amiin amiin. Mhm. su ma la laajoon pour nga présenter sa bopp ñi lay suivre ci Leewtoo TV rek kan mooy Khalifa ja nga yëkkati baat bi. Khalifa Dia amateuru làmb la déjà. Mm-hmm. yàgg fas nekk fas mm-hmm. di yàgg ci làmb ji. Mm-hmm. temps wu Mbaye Guèye. Moustapha Guèye. ba léegi ko euh, am ak ay fa ñu nekk ci làmb ji da nga ci am mbokk wala. qu'est-ce qu'il y famille pratiquement ay famille sportive nañu quoi parce que sama grand frère yi. ay footballeur nañu woon. Iba Dia joué na Omar Dia jeune ja avant nekk RTS moom moo nekkoon RTS. Omar Dia ban Omar Dia bu nekkoon RTS. bi nekkoon RTS la. sama mag la ñu bokk ndey ak baay. waaw ah, yéen bokk ndey ak baay na benn frère bu nekkoon manager moom it ñu koy wax Moussa Dia yàlla na ko yàlla yërëm moom it décédé na temps yële. ok moom it sportif la woon. footballeur foot euh, moo yoroon licence su jaraaf yi. ok mujjee nekk manager làmb kon nag mun naa wax ne suñu famille. ay sportif lañ. waaw ñooñu xam nañ leen moom Pa Moussa Dia moom yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àljana mm. defe naa waa làmb xam nañ ko bu baax mu amoon ci importance trop Omar Dia tamit RTS yàlla na fi yàgg te moom tamit mm. yaakaar naa mm. nit ñi xam nañ ko. yaa ngi dégg kon loolu mooy Khalifa Dioka di doomu Fass ah defe naa. Fass bon juddoo ma fi maa ngi juddoo euh, rue Escarfé. mais ba léegi maa ngi Fass. ba léegi yaa ngi Fass kon nag dafa mel ne Fass laa xam ko. <laughs> loolu yàgg na macha allah yàlla na fan yi gën a ngay yow tam ñu xëy xëy gis la ci làmb comme manageru Gris Bordeaux mhm. loolu lu ko indi waaw lu ko indi mooy Alsane Jaxate moo doon manager Gris mhm. ñu dem ba ci biir Alsane feebar mhm. mun du ko yore Gris ci boppam moom ma sollicité du màkk sama mag nekkoon na ci affaire yi te man it ma jóge ci ci bien daaw ñu mënoon gis mais maa ngi woon au sein de l'écurie doon ànd ak Moussa Gningue nekk ci encadré yi hmm. mu xam ne am na lu ma xam ci kii hmm. mu woo ma ne ma est-ce que mënoo nekk sama manager manager noonu la ko nekkee boobu nag fekk na tamit sama grand frère hmm. mu Dia mi ngi doon toppatoo pour mu dugg seen groupe boobu pour mu dugg nekk manager yàlla def Gris tam bu mu yëgee loolu mu ne ma est-ce que mun nga nekk sama manager ma ne ko amul benn problème maanaam Gris rek moo la ko wax nga nangu wala ak écrit bi tamit dañ ci waxtaan président bee ñi yor wàllum direction technique beeg wàllu management parce que ay manager ñu ngi foon boobu. ñëpp ci waxtaan. Mhm. à du président. Abbas mhm. Ndoye secrétaire général bi Malick Gueye. Mhm. ñëpp mu ma bëggoon en réunion pour mu nekk manager. ok loolu moom foofu la moom ne foofu la sabab bi jógee pour ma nekk manager écurie Fass mais pour le moment manager Gris Bordeaux la mais am na mbër yu bari yu nekk au sein de l'écurie yoo xam ne bëggoon nañu ma manager leen soo nekkul ci regroupement regroupement des managers. Hmm. da ngay am difficulté ñu ngi toppatoo pour mu bokk ci dugg ci regroupement des managers mais def naa ne dina sotti ko incha allah. balaa may ñëw foofu sax bi nga dugg see comme manager ci biir écurie Fass tamit amoo fa problème ak ñi nga fa fekk comme ay manager parce que ku ne xam na am na manager yu fa nekk. yore woon ay yore woon mbër ñu gënoon ci gis ku mel ni Cheikh Ndiaye amul benn jafe-jafe foofu wutal mbër combat parce que ni mu demee la woon. Mhm. Cheikh Ndiaye man nangu ko bu baax sax. Cheikh mhm. Ndiaye rek moo yore woon man mun a pratiquement moo yore woon mbëru fas yëpp. ok parce que moom ma doon manager Ibra Mbaye sax après la duggoon nekk manager mais avant Ibra Mbaye di dugg manager avant man may nekk manager. Mhm. Cheikh Ndiaye moo yore woon lutteur yëpp te amuñu benn problème wax nga. amu ngeen problème lan moo tax écurie Fass maanaam ñoom par rapport yeneen écurie yi écurie Fass seen i mbër maanaam ku newul ci écurie bi doo leen manager. waaw lu tax loolu. waa mais option la. am na ñoo xam ne dañu bëgg am am am nekk ci plusieurs écuries xam nga di nga dem ba sa ñaari mbër dañuy tase. Hmm. te loolu amul logique man sama grand frère noonu la doon def mais man dama ne su ma nekkee écurie Fass manager du ma manager beneen mbër bu bokkul écurie Fass si option la bu ma jël. option bu ma jël am na ñoo xam ne dañuy def bëgg am yeneen kii option la. seen seen ñaari mbër suñu tasee ñu dem gis beneen manager ñu arrangé te man du ma loolu fekkuma ci. Mhm. man benn écurie rek laay manager muy Fass. Fass rek eh, wax nga ko léegi ci ah, ah, regroupement des managers nga ne ay difficulté da nga ñëw nekk manager am sa licence comme manager mhm. ban ba ban difficulté nga am ak de des managers bi nga xam ne Basirou Babou moo ko jiite ñu koy nuyu. am passage moo ko groupe bi man it maa koy nuyu au passage manager yoo xam ne CNG daf leen reconnaître mhm. sama compagnie bi mhm. am manager yoo xam ne ñoom dañu bokk ci regroupement des managers mhm. c'est-à-dire que regroupement des managers yooyu ñoom ñoo yore quatre-vingt-dix ou quatre vingt pour cent des lutteurs su fekkee ne yow bokkuloo seen biir lutteur ba mun munti am du ñu nangu nga nga nga nga kii nga nga signé ak ñoom quoi il faut que nga dugg ci seen seen seen regroupement bi pour nga am possibilité pour sa mbër mun bëri regroupement bu ñu fàttali ne mooy bi baabu jiite ah. bu baabu jiite mais lu tax CNG war war la mën a jox licence. Hmm. nga amee licence jox du CNG moo leen di jox licence yi. moo leen jox ñaar ñoom ñoom ñoom baabu. waaw am nañu licence CNG. am seen licence ñoom. bu bokkul ak boobu licence fu mu jógee ci seen bopp la ji ci ñoom. waaw ñoom seen regroupement da ngay am licence foofu am am am licence su CNG. doog a mën a signé ak man pour moment licence su CNG rek la am. amoo regroupement amoo licence regroupement des managers. Gris Bordeaux bi muy bëri ak ak ak kan moo signé woon. man maa ko signé. mais parce que CNG. waaw dafa reconnaître ñu am seen licence. ok. man am naa licence CNG kon nag ñoom mën nañu reconnaître comme comme comme comme gris comme comme manager gris quoi. ok moo tax ma signé contrat boobu. loolu loolu leer na. waaw internautes yi ñooy dégg wax jaa ngoog léegi ma ñëw nag si mbirum gris. Mhm. mi nga xam ne fan yi coow li bëri na ñu fi gis la sa fan yi nga génn. Mhm. gris Bordeaux ñu xëy xëy ne combat am ak Balla Gaye 2 Gaston Mbengue waxaale nañ ba juboo mhm. ba am lu mu ko jox. loolu bi mu ko joxee ñu demaat benn moment ñu déggaat ci ay coow ci lu mu ko waroon dolli ba ay wax am ci jàppal bàyyil ba Gaston Mbengue sa taxaw ne moom Gris Bordeaux mu du ma ko joxaat dërëm nangam sangam wax jooju yow loo ci mën a leeral sénégalais yi combat fu mu jaar ak nu mu taxawee ndax yow am nga ci loo ci xam am na lu ma ci xam hmm. mais c'est-à-dire que man gisuma ci problème loolu hmm. ñoom ñaar ñëpp hmm. ils ont raison je vais m'expliquer Gaston il a raison de dire ce lu mu wax am na na am na raison Gris Bordeaux lu mu laaj am na raison pourquoi parce que. ñoom ñaar dañu waxtaan ba jubóo. ci kàddu pour que combat bi ñaata la Gaston war a fay Gris. waxtaan ba jubóo. suñu waxtaanee ba jubóo xam nga sooy soo soo jubo ci benn benn montant. pour nga joxe avance da ngay joxe la moitié. mais ñoom dak dox nañu ba Gris dina encaisser moins de la moitié xam nga loolu ci arrangement rek la bokk. moins de la moitié boobu mooy vingt cinq millions yu ñu yu siiw Sénégal yëpp xam. 25 millions la ko waroon jox léegi mu koy jox di ko jox di ko jox ba mu 10 millions parce que 10 millions ñu bari dañu foog man am ñu ma woo seen mbër am am na 10 millions millions yi demeewul global daf ko jox par bribe daf ko jox ko jox 5 millions joxaat ko joxaat ko ba mu 10 millions. mais jox na ko 10 millions yu mat daal jox na ko 10 millions yu mat sëkk ah léegi loolu sur temps bu xaw gudd pour mu jot 10 millions léegi yow soo su fekkee na ngeen waxtaan. bu jubboo ci vingt cinq millions nga jox ko dix millions wóor ñaata mooy des. quinze millions de moo des defe naa. quinze millions yooyu su des moo des léegi dix yooyu mu ko jox ak temps bi tabaski bi ñëw ak charge yu mu yore dix millions yooyu nga ne wóor na ma ne lu ci des bariwul su ci amee lu ci des ok léegi nag moom pour préparer sérieusement son combat pour le préparer il lui faut de l'argent te Gaston moo ko war a jox xaalis boobu moo tax mu laaj ko 15 millions mun na am sax laajin bi moo moo moo moo demee moo moo jaarul yoon ba Gaston moom xam nga dafa tàng di ne gën na wax lu muy wax ko mais il est il, Gaston il dans dans dans ses droits de dire man du ma ko jox 15 millions parce que CNG ubbiwuñu parce que lamb ji xamul kañ lay commencé parce que dem na ba laaj euh, certificat médical. d'accord mun naa ko concéder il a raison de diir sax wax na wax na dëgg ko laaj balaa may balaa may joxe un franc na ma na na CNG ubbi et cetera. Gris Bordeaux tamit il est dans son droit waa ji desal na ko xaalis mu laaj ko xaalisam kon nag loo tax ma ne la ñoom ñaar ku nekk am na raison Gaston am na raison pour ne du ma joxe dara Gris Bordeaux am na raison pour laaj lu ci des ci xaalisam boobu. léegi euh, léegi ne Gaston dafa tàng Gaston dafa tàng wala dafay moom day défendre ay intérêt wala. voilà loolu mooy wax ji Gaston il défend ses intérêts et eh bien man du ma ko conseil ci loolu parce que xam na nu muy défendre intérêt mais face mi dañuy défendre seen intérêt man damay défendre sama intérêt lutteur parce que bu mu kiiyee parce que bu mu génnee wax loolu man it ma xam ni mu demee il fa que ma génn pour wax ne nii ak nii ak nii lay demee loolu c' une façon de défendre moom tamit sama lutteur comme moom nu muy défendre position est ce que yéen yow sa lutteur bi muy défendre Gaston loolu lépp yow témoin maanaam témoin nga ci loolu yaa ngi fekke yaa ngi xam non non fekke wu ma xamuma yëg naa yëg rek yëg naa non wax na ma muy génne wax na ma ni ak ni ak ni la ni Gaston moo ko war a laaj effectivement war moo ko moment yooyu moo ko waroon laaj mais du ma du ma ko dem na de ba ba mu am ay ñagas-ñagas moi j'ai préféré ne ko xoolal da ngay toog fële demal fële léegi ñun ñu ñun ñu wax ñun ñoo xam ne ñoo la yore ñoo la encadré ñu wax à a place. parce que mun na am communication bi am na fu muy demee gars yi dinañ ko jox toor alors qu'il n'a pas léegi nag pour pour clarifier ñu ñuy génn pour clarifier les débats mu gën leer quoi te te man man moo garçon ak Gris sax duñu ñu ay adversaire ay partenaire nañu adversaire Gris mooy Balla Gaye adversaire mooy Balla Gaye adversaire Gris Balla Gaye la du Gaston. mais est-ce que Gris war na dem di négocier combat boo xam ne yow en tant que manager yëgoo ko. wala loolu tamit beneen beneen affaire la. loolu. Hmm. beneen affaire bu ñu war a waxtaan après. Hmm. mbër yi Gaston moom suy nu ma nu ma xoolee affaire yi parce que maag moom miintewuñu tellement mais nu ma xoolee analyser affaire dafa ne mel ne moom mbër bi lay waxal directement suy tëggal combat un grand lutteur. doo wax ak manager mbërëm lay mbër bi lay waxal suy tëggal combat ak Yékini mun naa am Yékini lay waxal directement et cetera et cetera loolu moo jur lii mais léegi dorénavant su fekkee ne am na kuy wax ak ku bëgg a combat Gris da nga jaar ci man ba pare. loolu dootul am daal bu ma la déggee. yaakaar naa ko su ma bu ma ñëwee tamit dégg nañ Gaston ci ay waxam mu ne moom mbir mi bu naree demee noonu sax nañ ko delloo 10 millions yéen pare ngeen pour delloo 10 millions. non Gaston bon waxin rek la ko xam nga moom comme je t'ai dit dafa xaw tàng wax na dëgg dafa xam nga moom nag ñambur ñambur la. xam nga ñambur ñambur du jël 10 millions di ko sànni. <laughs> waaw di ko sànni. xam na fu muy dugal xaalisam. nee na ba muy ñëw Dakar mbuus la fi ëndaale de. waaw waaw moo tax moo tax euh, du sànni xaalisam. <laughs> xam ne ne xaalis boobu ki mu ko jox dina ko bëreel ala kulli àll te Gris da koy bëreel. Hmm. bon waxin la rek parce que nu ko Gris peut-être nu ko Gris laajee euh, xaalis bi moo ko neexul moo tax mu am comportement boobu. ko am comportement mais ñoom ñaar ñëpp man je les donne man nag man. fii du ma jouer rôle manager rôle intermédiaire laa fa bëgg a jouer. parce que il faudrait que ñu ñu ñu ñu wàññi coow li. tempérament bi quoi coow li wàññi ko. <laughs> léegi euh, si 15 millions yooyu des léegi joxo na leen rendez pour kañ leen ko mën a jox wala wala la mu wax ne moom dootul joxe foofu loola. lu mu wax pour le moment foofu la ñu mujjee du mu wax mais nag moi je vais essayer d'entrer en contact avec lui pour ñu jëm a seet euh, nu ñu seddalee affaire yi coow bañ am ba Gris lu mu mun jot loo xam ne dina permettre parce que Gris ba léegi préparé wul combat bi dafa bëggoon dafa doon laaj xaalis pour mun préparer combat doon laaj pour préparer wu quoi. pour préparer wu. Mhm. léegi am na ñu wax ne seen adversaire bi ngeen ko seexal muy Balla gay jotul te kenn déggu ko mu wax. yéen rek a wax. waaw waaw mais c' est normal Balla Balla Gaye c' est normal Balla Gaye moom du waxaal du waxaale du wax am na ñu koy waxaaleel am na ñuy wax a sa place mais dafa dafa suivre boobu rek. Ah. moom balaa muy wax combat bi taxaw ngeen toog def face à face loolu c'est bien c'est foofu moom dama ko ci naw. moom balaa muy wax rek ngeen def face à face mu wax. Hmm. loolu baax na wala sax affaire yi comme lu euh, lu nu mu ko defoon bële passé ku nekk di wax ak pour pour jaay combat bi loolu baax na. mais pour waxale waxale kon daal moom su ma la déggee moom moom moom moom daal mbëral boo xam ne kon su ma déggee say wax maanaam moom du wax ci kombaam daa am ñu ko ciy waxal rek daal. dafa am ci pour pour pour pour pour. Euh, wàllum yooyu quoi. waaw ah, du ci wax ah mosuma ko dégg mu wax ci lu ma koy dégg mu wax mooy su combat bi taxawee mu menacé adversaire am ak kii ak yooyu di kii yooyu c'est de bonne guerre parce que loolu day jaay combat. moom dafa mun jaay combat mais ko dàq jaay combat fuuf. Gris Bordeaux moo dàq jaay Balla Gaye combat fuuf. Ah. pour man. boo ah. ko dàq jaay combat. Balla Gaye Balla Gaye pata daf da ci da ci boole lu ci amul rek mais Gris mun na jaay combat trop. combat boobu jël ngeen ko ñëpp ne nañ da ngeen di maanaam daal da ngeen di xaru sax na ngay jégal ma ci kàddu gi. Mm-hmm. parce que Balla Gaye fi mu nekk nii maanaam bis bu ngeen ko seqee ñu bëri dañ jàpp ne bu baax ci yéen. waaw waaw ah, waaw xam nga ñu bëri yooyu dañu xaw euh, féete ci. est-ce que yéen pare ngeen pour daan Balla Gaye. am ngeen lu ko daan. giri am na lu ko daan am lu ko daan wallahi am na lu ko daan. Hmm. waaw ça va difficile du yomb nag parce que Balla Gaye grand champion la mais giri am mais giri mës nga gis ñu daan ko mu jaxar fii ci làmba ji bu mu bi nga commencé seetaan giri ba léegi gis nga fu ñu ko daanee mu jaxar amul combat bii. Hmm. moom Balla Gaye. Hmm. Balla Gaye moom dominé ci frappe yi mais c'est la première fois moo tax ñu bari jaaxle mais combat bi dem na 30 minutes Balla Gaye mësul bëree 30 minutes. Gris yóbbu na ko à l'usure ba trente minutes pour man victoire amul foofu défaite amul foofu victoire amul foofu ñoom ñaar ñëpp am victoire pour man. Gris na bi yoon day dóor Balla mu daanu. ànd nga ci loolu dóor mu daanoon dóor mu daanoon mun na ko ébranler ci ay coups dóor mu daanu il faut rek mu travailler puissance de frappe hmm. est-ce que am na puissance de frappe bu dóor Balla gay bon léegi loolu travail la. moo tax mu Gaston war ko jox xaalis bu mu dem préparé. pour mu préparé ah. ko joxe xaalis bi dina ko mu dóor <laughs> léegi am na koo xam ne ku ne xam na ne ba ba moom mooy deuxième tigre face muy Tafa Gueye. Mm-hmm. fan yi dégg nañ ci ay coow ci journaux yi que ne combat Gris Bordeaux ak Balla Gaye mm-hmm. yëgu ko géntu ko ci journaux yi la ko yëgee. xam nga loolu tam ay wax yu yàqu la ko xam nga benn journal rek mooy bind loolu benn journal. ban journal. pour ne pas le waaw mooy bind loolu. et puis c'est le même journaliste. la plupart du temps soo déggee seetal at yi passé yëpp soo déggee ñu ne Fass am na remous kii génn fi dugg na fi génn na fii ci journal boobu c'est le même journaliste. est-ce que du kooku liggéeyam lay def. liggéey boo xam ne yow lu lu lu lu lu lu. lu mu wax lu bon sax mais lu lu négatif rek ngay wax ci écurie loolu du liggéey bu baax. mais mais mais war na xoolal na bàyyi keneen bind sax. mais est-ce que ah moom mi am moom mi gëstu di journaliste ami xibaaram yëg ne Gris Bordeaux jël nag avance te Tafa yëgu ko. Ah, ah, moom amul bu yëgee loolu muy xibaar du ko bind loolu est-ce la. kan kan waaw waaw. loolu loolu xibaar la rek. non xibaar mais yow. am na keneen ku dul Tafa Gueye ko ko yëgul woon pourquoi mooy simple Tafa Faye di ko wax ne Tafa Gueye. parce que Tafa c'est le directeur technique. te ku nekk gis na muy ni muy préparé giri. Ah, mais am na ay entraîneur am na ñeneen ñoo xam ne peut-être Tafa moo leen ëpp daraja ci équipe bi ci écurie bi mais am na ñeneen ñoo xam ne war nañu mun xam li xam te waxuñu dara te waa ji bind ko mais waa ji koy bind ne loolu pour pour jaay journal la titre ko en gros pour pour leneen la. li mu bind daa amul pour yow amul parce que ñoom dëju yaayu Abbas bi ñoom ñoo toog di waxtaan. dafa ak Giri. ñoo fa nekkoon ak waa Fass di waxtaan kooku su fekkee ne am na ay affaire seen diggante mais duñu toog wax mais c'est-à-dire que loolu man pour man amul. amul. non. kon daal Tafa gi yow yëg na combat Giri wax naa ak moom ci combat bi. xaw ma ndax yëg Giri moo ko ko wax mun na am yëg na ko feneen mun na am Giri waxu ko ko xaw ma. mais dama ne jëg na ko am na te il est hors de question man may yore Gris il est hors de question que Gris dem sans sans sans Moustapha Gueye sans sans Abdou Gueye sans sans tout ça ñooñu ñooy ñooy ñooy Fass du ma ko yemale ci famille Gueye bi ak ñeneen ñeneen ñi ñoo xam ne toujours ñoo koy encadré ñooñu il est hors de question que muy dem sans ñoom te moom xelam xalaatul muy dem sans sans sans sans sans ñooñu xalaatu ko mais nag journaliste mooy wax loolu rek comme ça bës la def daf ko wax rek ñu mu waaw Moustapha pour ka waxu ko non mu wax ko tey mu wax ko démb wala mu wax ko ëllëg dina ko yëg dina ko ko wax dinañ ci waxtaan te Gris mënul Tapha Gueye mënu ko bañ préparer. Hmm. même suy bëreeg Balla Gaye Tapha Gueye ko bañ préparer c'est pas possible. moo koy préparer daal moo koy préparer. voilà hmm. ku yàlla moo koy préparer. yéen loolu da ngeen waxtaan naan ba pare wala. écrit bi non que jar na waxtaan parce que loolu mooy lu normal. jarul hmm. waxtaan lu normal mais lan mooy parce que am na ñu koy sénégalais yu koy laaj problème mu dafa bëri ay jàppal bàyyil jàppal bàyyil kii yëgut lii dàq nañ ci dem na jàppal bàyyil la hmm. lan mooy seen problème bëri na sénégalais laaj loolu quoi am Fass est-ce rek a tax nit ñi jënd journaux tamit euh, Père Khalifa du ma wax ah. ne du yéen rek a fi nekk nawet non dama ne waaw ñun bokk nañ ci ñu fi nekk ñoo xam ne ils sont représentatifs mais c'est-à-dire que wax ci écurie Fass sa journal day jaay dañ dañ war nañ waxtaan rek wax dëgg soo waxee benn écurie bu ndaw bëggum tudd benn écurie mais écurie bu ndaw bu nekk ci ginnaaw Malika soo waxee ci écurie boobu nit ñi du ñu jënd journal mais soo waxee ci écurie Fass ne Mbaye wala Moustapha Guèye mais nii dañ koy jënd loolu yàlla moo ko def écurie Fass sooy titre ci ñoom en négatif nit ñi dañu jënd waa ji il titre en négatif nañ tuuti tuuti na changé ko quoi loolu moo tax keneen moo wax négatif voilà noonu la demee daal Uh-huh. amul problème écurie mu Moussa Gueye amul problème agribor Gris Bordeaux amul problème ak Gris Bordeaux pour man y' de problème. léegi fi ñu jeexal am na koo xam ne mooy symbole écrit wala mën nañ ne mooy écrit muy mbay gi ñu koy ñaan yàlla yàlla na gudd fan te wér wér dina ba fan yi gis nañ ko man ñun ñi kera bañ fay ba fa waa gendarmerie dem bokkoon naa ci ñu demoon ci reportage bi ah, moom actuellement écrit bi nga xam ne moom moo ko fondé tax ñu bari tey nekk ay mbër lan la ko écrit bi jàppale maanaam ci li nga xam ne actuellement moo ko dal muy muy wér gi yaram mais loolu li ñu ko war a jàppale ci lan ci ci fan maanaam ci ci ah, xam nga ku wéradi moom ja ja euh, dina soxla soutenir xam nga ko waaw mais xam nga loolu écurie Fass suñu def duñ ko wax tamit hmm. te dafa nekk lu naturel loo xam ne dañ ko war a def warul am benn publicité benn publicité c'est-à-dire que écurie Fass ci boppam war na mun def te Abbas mooy président écurie Fass moom su defee dafa mel ni écurie bu def te def na defaat defaat defaat hmm. mi mu ngi rek mu ngi def rek mu ngi def <laughs> kooku dafa mel ni kon nag écurie te lu muy def Abass muy def du ko wax kenn kon écurie Fass du ñuy defal Mbaye Guèye ñu ko wax kenn parce que lu naturel la war a nekk lu normal parce que soo ko waxee dafa mel ni dangay non lu naturel la daf ko war a def dinañ ko def te kenn du yëg yow sax doo yëg man du ma yëg ah man damay lijjantee xibaar de man moom faw ma jéem a yëg moom di mais tey noo gisee làmb ji ak corona bi ak promoteurs yi jël seen xaalis di ko jox di ko jox promoteur promoteurs yi jël seen xaalis di ko jox mbari yi mhm. yéen lu ngeen mën a dalal seen parce que corona am na te terewul promoteurs yi ñu ngi góorgóorlu au moins sax di génne dara di ko jox mbër yi yi foofu daal dañuy wax ne promoteurs yi gàcce ngala franchement yow xamoo xamoo làmb kañ lay kañ lay ubbi xamoo ndax dina am 2020 wala 2021 wala 2023 nga jël sa xaaj dugal ko ci loolu dañuy wax gàcce ngalama léegi kañ lu ci des mooy jéem a ñaan sénégalais yi ñu respecté affaire yi parce que sénégalais yi ñoo fi téye feebar bi nañ koy wax nañ koy waxtaan sénégalais yi ñoo fi téye bi parce que du duñu respecté lu ñuy wax du duñu respecté masque bi duñu respecté distance yi duñu respecté dara surtout chez les jeunes jeune yi ñooy dugal feebar bi ci kër léegi nag suñu bëggee feebar bi dem làmba ji ubbi jeunes yi peuple làmb ji dañu war a respecter lu ñu wax lu ñu leen wax mooy les mesures la dañ ko respecter suñu respecter lépp làmb ji na ubbi comme ça promoteurs yi bañ sànni seen xaalis parce que lii sànni xaalis la ñu ngi ñu ngi góor góorgóorlu di joxe xaalis te xamuñu fu ñu jëm moo dal Gaston mais loolu ñu mel noonu da nga war a def lu ñu la wax pour fu bu fi jóge parce que feebar su fi jógee rek ñu làmb ji ko ubbi pour ñu feebre bu jóge fi nag il faut ñu respecter affaire loolu rek moo fi moo fi mun jëlee feebar. loolu rek moo fi mën a jëlee euh, kontaan naa ci yow. maa la <laughs> na yàlla kontaan ko. waaw waaw ba balaa may jeexal ah parce que tamit gis nga fan yi jégg nañ demu Alioune Sarr ak yooyu. Mm-hmm. Ndeye Coumba Fall mu ngi ma koy fàttali. Mm-hmm. Euh, ñu ngi wax naan Tyson di tudd ay tur quoi mais Tyson bokk na ci ñi ngeen ci ñu war a jël yooyu. Mm-hmm. yow en tant que sénégalais buy dund làmb Tyson gis nga ko ci ku war a mën a jiite CNG. jiite CNG. waa nekk président bi. remplacer Alioune Sarr quoi. waaw ku nekk mun na nekk président Moussa Gueye. Tyson laa wax quoi. waaw mais damay damay damay développé. waaw ku nekk mun na nekk président. y compris Tyson y compris keneen ku dul moom Yékini Moussa Gueye keneen. mais hmm. man sama xalaatu bopp. Hmm. Eh, président eh, eh, CNG. day hmm. nekk un intellectuel vrai. day nekk un amateur. koo xam ne xam na làmb ji nit ñi li ñu bëgg ak li ñu bañ mbëree lu ñu dund. ak lu ñu lu ñu dund géwél lu ñu dund ak lu ñu dugg affaire bi dafa bari ay làmb ji dafa bari ay difficulté yoo xam ne ku xam làmb rek moo ko mun diriger parce que Alioune Sarr et puis ku fi ñëw bul wax ne def naa lu fi Alioune def ku fi ñëw hmm. da nga war def mieux que lui te def mieux que lui jafe na parce que Alioune Sarr lu dal Arsène Wenger ngeen baal ma Arsène Wenger moo doon entraîneur Arsenal moo ko dal dafa yàgg Arsène Wenger dafa dem ba am plus de vingt cinq ans chaque année mu yóbbu équipe bi Ligue des champions ñun la fi war a jógee pourquoi dafa yàgg. pourtant def na ay résultats yu baax Aliou Sall loolu moo ko dal xam sama grand la nag sama grand frère ñoom ñaan ñu bokkoon classe sama grand la mais miinu ma comme nu mu war a miinee jàppalu ma ko musuma defal dara mais dama ne li mu fi def ku fi ñëw da war def.